ami internet bu Actubuzz maa leen nuyu di leen siyaar wax ne amati nañ bégte bu rek contentement di leen présenté seen émission mooy rendez des artistes ñaan ne seet nañu ndaanaan di jégul nag baax a baax ci voix bi damaa xaw a a temps yëpp waaye nag yéen yéen ñu ko doon laaj yéen internet yi ñuy suivre à travers Actubuzz naan ngeen naan kañ ngeen di seeti Aïssa Koné kañ ngeen koy seeti ba tax na tey moom la ñu seet seeti tey waaye nag euh, dinañ la maa ngi leen di dellu ziar euh, di leen nuyu vraiment et di leen remercier si invitation alors moom Aïcha Koné noonu la nuyoo tey nañu waxtaan moom ci lu baree baree baree baree Aïcha en nga dugg si li nga xam ni mooy Sen Petit Gallé dugg si bi naka la demee naka nga dafa intégré bi Sen Petit Gallé en 2014 waa dama intégré Sen Petit Gallé en 2014 bien vrai que ñëwoon na en 2013 mhm. mais dama fekkoon présélection bi jeex du coup je suis revenue en 2014 mm -hmm. voilà ma ñëw nag yàlla def li gën c'était un peu difficile nag parce que j'ai été une candidate repêchée. Mhm. néanmoins amoon na benn moment j'ai cru que ne duma ci bokk. Mhm. mais li yàlla di def rek mhm. après ñu jël ma. alors nga jël ko en 2014 naka nga ko dundee ak sa famille. voilà contentement la ndaxte sa famille un peu partout lañ lay woo di kontaan ci yow sa yaay fier sa papa fier say waa kër fier ci yow. vraiment mu nekk expérience boo xamante ne. Mhm. bokk na ci expérience yi ma gën a marqué. Mhm. alors moom nag dama ko xam parce que dafa nekk artiste boo xamante nii famille am nekk ci aar famille am bëgg aar di ko def kon moom tey bu nekkee artiste man def naa ne bettu ma ndax xam naa ko bu baax a baax Aïcha tey naka ngay dundee biir seen petit gàllé yow aaw ak ñi nga xam ni ñoom nga nekkal. waa dañuy dund ci jàmm ak salaam li nga xamante ne moom la sunu yaay yaree ñu. Mhm. voilà on est bien c'est une famille. ku nekk boo amee loo war a wax sa moroom wax ko ko mhm. ku nekk boo amee lu la sa moroom war a jàngal mu jàngal la ko mhm. parce que loolu mooy nit en dañuy mhm. mottalante rek. tout à fait te je une personne bi nga xamante ne xeebu ma sax xale buy dox. wala war ma jox conseil. parce que loolu yëpp boo ko boolewee. mën na la am na lum la mën a rapporter ci sa vie. on est bien on vit bien euh, voilà. alors nga nekk seen petit mu nekk loo xamante ni tey ça fait des années. mun nañ ko wax ah 4 ans ou 5 ans nga nekk seen petit petit gàlle alors ban retour la Aïcha Koné di am. waaw seen petit gàlle nag am na retour yu bëri yu ma yu ma indil. Mhm. parce que ci éducation bi sax participer nañ ci ak sama waa kër. Mhm. ndaxte Tata Ngoné dafa participer ci sama éducation. Mhm. ne xam na ni yar dafa metti mu ñëw participer si ak sama yaay ak sama mm-hmm. papa mm-hmm. sama maam samay tante et tout pour mm-hmm. ñëw participer sama éducation rab indil ma lu bëri ay contrat ay publicité et cetera genre c'est une famille mu jàppee comme doomam ñun ñëpp la yemale voilà alors am na ñoo xam te ni nekkoon nañ seen petit petit gàlle alors bi ñu génnee seen seen petit gàlle dañ gis ci beneen yoon boo xam ni bokkul ak li nga xam ne moom la nit ñi xamee alors ñu bëri di wax ne euh, seen petit gàlle dafa yàq xale yi dafa yàq ndaw ñi bëri na ñu bëri ñoo xam ne nekk nañ fa ba génn fa boo leen gisee ñii ku ci nekk yaa ngi ci lu la neex am na ñoo xam ni tey dañuy def ay photo nuyu am ñoo xam ne tey dañu dégg ci loo xam ne naka su noonu la te seen petit gàlle lanu lanu génnee en tant que yow nga nekk seen petit gàlle bët boobu tamit yéen dañu koy xoolee waa euh, loolu du ñàkk loolu du ñàkk parce que non seulement coow li day bëri te lu neex foo mu bëri coow voilà mais Petit Galle bu doon yàq nit kon ñun ñi nga xamante ne ñoo fa nekk nekk depuis des années ñu yàqu. Mhm. mais dañuy surveiller de très près. Mhm. je peux dire que ni am na lu bëri yoo xamante ne xale yi dañ koy ragal a def sax. Mhm. je dirais même pas ñi nga xamante ne ñoom la all ci all star yi. mais mis à part ñi nga xam ne nekkatuñ fi sax. dañuy sóoraale tataangoone ci lu bëri. da tey da leen di woo. ñi nga xamante ne nekkatuñ fi sax dañuy ah. tàngoon di leen jàppale. et ah. tout ah. alors euh, je peux dire que voilà Petit am na lu bari loo xamante ne. ñi muy ñi mu defaral moo ëpp ñu yàq. dafa fekk ne yàq moo fës. dëgg la alors yow da nga nekk di ko xam ne da nga weex donc mhm. tout le temps dañuy xëy di gis ci YouTube bi wala yenn plateforme forme yi que Aïcha Aïcha Koné nekk na ci lii nekk na ci lee dañ lay faral tuumaal ci lu ci lu bëree bëri d'ailleurs sax récemment y a trois jours ci ci ginnaaw ñu ngi lay tuumaal sa diggante ak bu bu bu ñu wax comme quoi yi ñaar am ngeen lu ngeen sékk bon loolu ay rumeur la rek parce que Bobo Ndour bu ma génnee moom génne sama papa. Mhm. c'est mon père. voilà alors euh, nit ñi bu ñu nekkee di wax loolu parce que dañuy wax leen neex rek Bobo Ndour sama papa la. Mhm. Tata Ngoné sama yaay la. léegi la c'est une famille entière. Mhm. alors ba tey damay taxaw ci Bobo Ndour ressemblance bi am famille familialité bi am sa diggante yow ak Viviane. dafa jaaxal ñu baree bëri ñu bëri dañ ne est-ce que Viviane nekkul moo lu ma la jur man xam naa la mais bon nit ñi xam internet yi dañu bëri dañ koy wax sa relation ak Viviane nuróo bi ba ci style bi ngay bi ngay woyee dafa xaw a nuróo ak Viviane ba ci solin beeg yëpp yëpp lu waral style lu waral loolu waaw Viviane sama idole la comme ni ma ko waxee c'est pas la première fois ma di ko wax mhm. elle m'a beaucoup inspiré mhm. voilà ba fi ñu toll nii nekk nit koo xamante ne dama ko bëgg et tout. Mhm. mu teg ci mu nekk nit ko baax aussi. nit koo xamante ne fu mu taseeg yow mu ngi lay joxe jéem a jox mhm. conseil. Euh, moomi bi moom sénégalais yi je veux dire que way wayu wayu sénégalais la parce que duñ ko bëgg. Mhm. voilà Papa Thione nag munoo interpréter ci moom loo xamante ne nit yi duñ ko bëgg. ndaxte c'est en c'était en légende. tout à fait voilà mooy loolu nag ñu interpréter ko nit yi bëgg ko. peuple bi choisir ko. mooy loolu daal. alors li ngeen dégg ci ginnaaw dañ ko fekk répétition muy répété voix bi sax nekk fi mais bon comme yéen lépp lu ngeen bëgg rek ñun dañ ko jox moo tax ñu toog bëgg waxtaan ak moom du ma la wayloo ndax xam naa ne voix bi sang bi nekk fi waaye ci kanam xam naa ne di nga way di force parce que bëgg voix bi yeew ah, ah. tey ba tey dañuy taxaw ci euh, ki nga xam mooy famille Thione Thione après bi nga génnee moom i dada dade bi est que ñenn ci waa kër si ñoom waaw Euh, je peux dire que les messages, euh, j'ai des messages venant de la famille. Mmh. Comme qui bon su ma ko waxee répétition lay doon. en mm. plus nit yi dañuy nekkaat di di di waxaat rek. Euh, mm-hmm. c' est internet yi alors euh, c' est la première fois ma di la ko alors ba tax na euh, suba gi dama xëy dama xëy suuf souvent man su ma invité nit damay dugg ci biographie am xool xool ci moom lu bëree bëri dama xëy suba gi gis ñu bindal la Aïcha Koné ak euh, na Alioune dañu am benn relation bu ñu bu boo xam ne mooy mooy loolu dañu leen génn. Seydina Alioune mosuma ko gis sax. ok sénégalais dañuy wax nii rek. on n'a même pas de numéro ensemble. ok juste rek échange message Instagram la c'est quelqu'un de bien bu gisee dara lay féliciter wala dara. comme yeneen ak ñeneen ak ñeneen. ok bu ñu génnee ci tub bi nga xam ne génn nga ko yàggul dara mu nekk clip boo xam ne bu extraordinaire ñëpp ko apprécier ñëpp ko bëgg mu nekk loo xam ne dañoo gis maanaam ñi nga xam ne mooy presse art beneen ay si lañu gis ci côté soline bi ci côté clip bi ci côté lu baree bëri secret love bi. waaw Secret Love bi nag loo xamante ne dañ ci liggéey la man ak sama staff muy Prince Art mhm. euh, dañuy xool yi nga xamante ni moom moo moom moo gën a naay si yow la lu ñu la defar rek c'est parce que am na lu tax mhm. te on a vu que ni monde bi ñu ne Sénégal bi ñu nekk léegi ça manque vraiment d'acoustique mhm. tu vois rarement ñuy woy acoustique te dafa am ñoo sénégalais yoo xam dañu koy déglu. dafa am ñoo xamante ne dañu bëgg acoustique dañuy bëgg toog slow déglu lu lu lu mhm. slow. Mhm. moo tax ñu génnee ko am ñoo xamante ne nag mbalax maan yi lañ dañu bëgg mbalax. Mhm. ñooñu tamit seen bos moo ngi ñëw parce que ñun bëgguñu kenn mer. alors kon su ma la baax mooy maanaam yaa ngi yaa ngi préparé loo xam ni pour maanaam wàllu mbalax bu saf sàpp pure et loolu pare na ba pare yow. instant bii nii nii nii. si loolu lu ma ci wax yaak. décembre la ñuy xaar wala janvier la ñuy xaar. incha allah décembre bi semaine prochaine. alors tey ñu xam ki nga xam ne mooy Dieyla nekkoon na seen petit petit gàlle demoon na ba nekk demi finale après gars yi gars yi génn ko ci alors ñu bëri nañ ñee ñu bëri dañ ñee dañ ko ci génne kenn xamul après ñu comprendre luñ donte yow du mënoo ci wax lu lu bëree bëri mais tey gis nañ ne nekk na benn artiste boo xam ne lu mu génn rek day def bëm day doole en tant que yow. mu nekkoon sa brigade la nga wax ci loolu. waaw Dieyla dafa mën woy dafa mën woy macha allah artiste la elle est gentille voilà ku nekk ak yàlla lim la may rek. Mhm. voilà yàlla da ko may baatam dañ ko koy nangu dafa mën woy en plus elle est gentille elle n'a pas de problème ñun ñoo bokkandoo woon seen petit gàllé mën naa limite ñun ñoo yarandoo. Mhm. alors euh, voilà di ko ñaanal yàlla succès bi. Mhm. gën di dem rek. incha allah alors ku ci nekk boo nekkee ndaw am nga loo xam ne da nga koy pour pour def ko. moo xam positif moo xam négatif di nga rêver pour pour def ko bi nga gën a nekk ndaw Aïcha Koné kan la tegum bëtam ne kii bëgg naa def moom duo bi ma gënee nekk xale je peux dire Viviane. Viviane. Viviane. voilà parce que moom sama idole la moo tax. alors tey nga envisagé nga envisagé woon def ak benn benn duo ak Viviane est que ba léegi yaa ngi ciy dox tànki tànki jéego. bien sûr bien sûr Viviane Youssou Ndour ñeneen ak ñeneen. parce que parce que ay légende lañ vraiment. for naa ci wéyu béy ñu ne ay Aïcha Koné dafa def dafa am benn showroom bu rëy rëy. non Aïcha Koné vente en ligne la yore. vente en ligne di jaay lan. di jaay ay yére ci réseau yi ci réseau internet bi. ok so xam naa ne sama temps li mu jeex damay retourner waat un peu ci seen petit gàllé donc ba tey nit ñi dañuy xaw a am lu leen jaaxal ah. sànq maa la koy laaj mais tontu ma ci lu baree baree bare mu bëgg gën a leer alors ñu bëri ñu ngi wax ne képp koo xam ne génne nga fa. génne nga fa ñii dañuy nekk ci loo xam ne neexul yàlla wala ñii ñi def loo xam te nii c'est un peu mais yow à chaque bu ñu xëyee dañ lay dégg ci loo xamante nii dafay xaw a doy waar donte du Aïcha Koné moom moo moo ko def mais ay rumeur la lu ñu di dégg la nga ci wax ci loolu waaw même bu ñu déggee tamit doxuñu ba gis ma ci lu bon mm-hmm. tooguñu ba ñu génneel ma ci internet bi lu bon mm-hmm. doxuñu tamit ba gis ma ci foo xamante Oh, ñoo ngi koy daw. tout à fait. lii ak lii. ci ay wax rek la yem. léegi euh, ñuy wax xam nga kenn mënu leen tere ñu wax. dëgg la di bàyyi ñu wax rek mais l'essentiel mooy que xam naa sama bopp xam naa ma may kan xam naa fan laa jógee. voilà et je me respecte beaucoup trop pour. ak ñu ñu tëjee benn affaire muy secret love bi Aïssa Koné moo ko moom la wala wala du ko wax noonu rek waxal people bi. ok ñi nga xamante ñoo nekk fii di dund secret love. parce que yow boo amoon baat bu neex waaye li ngay dund <laughs> ah léegi man mi nga xamante ni man maa am sama baat pour wayal ñi nga xamante ne ñoo ma bëgg mhm. ñooñu ma wayal leen li nga xamante ne moom la ñu dund c'est